صحابي بدي البراء بن عازب رضي الله عنه دفا نتالي ني دفا ام بس ني ген اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام دي دنتي بان كين سي جوليت نيغا خام دنج بوكون سي الانصار كو فاتو نيكو يوبو ديكو دنتي جي سي باميلي نانا بي نيوي سي بام اكسي سي باميل بي فك نيغ تك كان سولاغو وكان كين دنتيغو كو سي بير باميل بي نانا يونتبي عليه الصلاه والسلام دال دي توك دال دي جونكان nee na ñu daal di toog jonkan daal di koy wër nee na ñépp ñi ngi ne tekk sëgg ne tekk noppi ba mel ne ci suñu bopp yi ay picc da cee tag ñuy ragal mu naaw nit bu picc tagee ci boppam muy ragal mu naaw ni mu naan tekk nga xam ne yëngatu sax du ko def nee na tekk gu mel noonu la def kenn waxul nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi yor benn bant di ko jam ci suuf di ko jam ci suuf ba mu yàgg mu daal di wax ne leen istaidu billahi min adabi alqabr muslu leen yàlla mu musal leen mbëgalu bàmmeel muslu leen yàlla mu musal leen mbëgalu bàmmeel muslu leen yàlla mu musal leen mbëgalu bàmmeel mu wax ko ba mu ñetti yoon ñépp di ko déglu ginnaaw bi mu ne leen xam leen ni jaam bi gëm yàlla subhaanahu wa taala bu demee ba toll ci di génn àdduna di jëm ci alaaxira lépp di ay kër ak ay dëkkuwaay yoo xam ne yàlla daf ñu ko defal muy ay jaar jaar yu ñuy jaar ndax kenn ku nekk si ñun xam na ni fii dëkkuñu fi dañ fee jaar rek jaaruwaay la si ñun bu nit ki tollee ci war fee jóge jëm ci alaxira nee na bu dee ku gëm yàlla la ay malaaka dañuy ñëw dikk jóge ci asamaan yoo xam ni ay xar kanam yu weex tàll la ñuy indi ci yenn xadis daf ne seen kanam yi dafay weex ba mel ne leeraayu jant bi nee na buñ ñëwee dañuy toog ci li ko wër ba fu mu xool rek ñoom lay gis doomu aadama yeneen yi duñ duñu leen gis waaye moom dina leen gis nee na bu ñu toogee ab diir malakul mawtu bi nga xamante ne bi moom mooy rocci ruuwu jaam ñi daldi na cëpp ñëw bu ñuy ñëw dañuy indaale benn sër malaan moo xam ne ña ngi ko jële ci aljanna ak gëtt di parfum boo xam ne ña ngi ko jële ci aljanna indaale ko bu ñu ñëwee téye ko toog di xaar malakul mawtu bu malakul mawtu ñëwee dafay ñëw tiim jaam boobu wax ak bakkanam du wax ak jëmm ji bakkan bi lay waxal daldi na ko yow bakkan bi nga xam ne bakkan bu teey la bakkan bu laab nga génnal nga wuyu ji sa boroom génnal nga jëm ci njëggalu sa boroom ci yërmande sa boroom ak ngërëm ngërëmu sa boroom nee na loolu lay wax bakkan bi jox ko ndigal boobu ci lu ànd ak dalal xel ak bégle gu mel noonu bu ko defee ruux bi daldi rocceeku ci jëmm ji ci yaram bi di génn génn goo xam ne génn gu oyof la nee na génn gu oyof goo xam ni dafay mel ne boo jëlee ndab nga def ci ndox di ko sotti noonu ndox mi di yolee di wàcc di wàcc ak facilité di génn nee na noonu la ruux bi di génnee ci bakkan bi ci ci ci jëmm ji ci yaram bi bu ko defee bu génnee mu daal di koy ŋëpp daal di koy jël loolu firnde la ci ne ruux jëmm la jëmm la ju nekk ci doomu aadama waaye xamuñu ko xamuñu lan la mais yàlla moom xam na ko te malaaka bi mu yebal ngir mu ñëw jël si ko loolu lay ñëw jël si doomu aadama bi ak ci anam bu nit ki mën a faatoo ki tëdd ci lal di faatu nii la ko malaaka yi di dëkkalee ci lu muy gis ki faatu ci accident wala ci leneen lu mu mën a doon itam noonu lañ koy dëkkalee waaye dafay gaaw gaaw goo xamante ni xëy na duñ ko gis waaye seenuk ñëw moom benn ñëw la bu ko defee bu ko jëlee rek malaaka ya mu àndaloon daldi jël ruux bi ci saasi duñ ko bàyyi ci loxoom lu tolloo xefe xippi lu dul ne dañ koy daal di jël ñu ko jëlee daal di koy sàng ca malaan moomu nga xamante ne bi moom lañ indaale woon daal di def gëtt bi nga xamante ne bi moom lañu jëlee woon aljanna daal di nag yéeg ak moom jëm ci asamaan yi bu ko defee muy dégager xet boo xam ne xet bu neex la fu ñu romb benn kuréel ci kuréelu malaaka yi rek xet gi xeeñ leen ñu naan waay waay bakkan bu teey bakkan bu làbbi bakkanu kan la bu ko defee ñu naan bakkan bi de bakkanu diw la doomu diw di ko tuddee tur bu rafet ci turam yi nga xam ne moom lañ ko daan woowee ci àdduna noonu la ñuy yégeek moom ci teraanga bu mel noonu ak mën nga wax escorte bu mel noonu ba mu àgg ci asamaan bu àggee ci asamaan yi ñu daal di sàkk ñu ubbil leen ngir ruux bi daal di yéeg ca kaw buñ sàkkoo ñu ubbil leen xam nañ ne ruux boobu yelloo na ñu ubbil ko ñu daal di koy tijjil buntu asamaan yi mu yéeg asamaan bu mu yéeg rek malaaka ya fa nekk ànd ak moom gunge ko ba ca asamaan ba ca topp ñu daal di koy tijjilaat foofu mu yéeg ba ca beneen asamaan bi bàgg ca kaw ca juróom-ñaareelu asamaan fi yàlla waxoon ne inna kitaabal abraari la fi illiyin ñi nga xamante ne ñu baax lañ seeni jëf yàlla nee na ñu ngi koy bind ci registre ba nga xamante ni ma nga ca illiyin ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw foofa la ñu def seen téere bi nga xam ne fa lañuy ñuy dajale seeni jëf ku ci faatu ci ñoom tamit sa sa ruux foofu la jëm bu ko defee bu ñu yóbboo foofu jaam bi dal di dajale fofu ay jëfëm yépp borom bi subhanahu wa taala ne leen delloo leen ruuxu samab jam ndax ci suuf laa leen bind te falaa leen di dundal falaa leen di faat ba bu ëllëgee fa la ñuy dekkiwaatee kon delloo leen ruuxu samab jam ci suuf bu ko defee ñu dal di delloo ruux bi wàcce ko delloo ko ci bàmmeel bi buñ ko delloowee ci bàmmeel bi dafay dellu ci jëmm ji ci anam bi yàlla xam ndax réalité wu dundu al barzax ndax barzax benn dig dig la bu nekk ci diggante dundu al àdduna ak dundu alaxira étape la boo xamante ne étape intermédiaire la bu nekk ci dig bi ci diggante bi nit ki bu jógee ci àdduna laata bisu penc di taxaw ñuy dem ci dundu alaxira dund boobu ci lay nekk muy alxayatul barzaxiya ay réalité ak réalité wu dundu àdduna bokkul la fay xew weesu na suñuy xel weesu na lu ñu mën a xam kumpa ci ñun waaye ruux bi dina dellu ci bàmmeel bi bu ko defee ñaari malaaka dikkal ko fekk ko ci bàmmeel boobu moo tax bi alayhi salatu salaam ne yàlla xamal na ma ne dinañ leen fitnaal ci seen i bàmmeel fitna boobu ñu leen di fitnaal ci seen i bàmmeel mooy laaj bi nga xam ne ñaari malaaka yooyu dinañ leen ko laaj dikk ci melokaan boo xam ne melokaan bu tiitlu la melokaan bu lu la bu ñëwee dañuy daal di toogloo bi ci biir bàmmeel bi daal di koy laaj ñetti laaj yi yonent bi alayhi salatu salaam wax bu ko defee nit ki foofa du fa ànd ak sagoom bi muy nekkee fii ci àdduna ndax li ñu wax léegi mooy réalité wu dund boobu ak réalité wu suñu dund bi bokkul foofa nit ki dafay tontu di sukkandiku ci nekkinam ci àdduna ak ay jëfam yi mu doon def ci àdduna ci lay sukkandiku munta wax lu mu deful woon ci àdduna mënul nekk bu ko defee ñu laaj ko ne ko mën rab rabbuk kan mooy sa borom bi nga xamante ni moo la sàkk moo tax nga am indi la ci àdduna di la wërsëgal moo la amal moo la taxaw ci sak am kooko kan la bu ko defee mu tontu ne sama borom mooy yàlla subhanahu wa taala rabbi allahu rabbi allah loolu lay tontu ñu ne ko maa diinu ko lan moo nekkoon li nga gëm fas ko sukkandiku ci ci sag dund muy sag diine lan la mu ne diini yal islam diine mooy lislaam bi yàlla waxoon ne wa raditu lakum l islaama diinan moom la ñu yàlla gërëmal muy diine loolu laa diine woowoon kii ni yàlla yabaloon ci yéen kan la loo xam ci moom waa jii ما هذا الرجل الذي بعث فيكم رجل لن يوخ رجل واجي دون سخنا نغو جار تربي نغير خول بخم دينا كو خم منا كوكو يننت يالا صلى الله عليه وسلم يالا يبال كو تنين منيو مدقل كو غمكو نينا كو واو لولو نغا وخ نونو نوكو خمي منا دما جانج تيري يالا بي دال دي كوي غم دقل كو كون تيري يالا بي موي سنو دلو واي موي سنو رفرانس اك يننت بي عليه الصلاة والسلام te kenn ku nekk na xam ne ñetti laaj yooyu lañ koy laaj ci bàmmeelam te kenn du ko ko tontul ku dul boppam amul kuy dox ci diggante yàlla ak ay jaamam ñetti laaj yooyu kenn ku nekk ci ñun war na ko waajal lan la ko lan la koy tontulee bu ëllëgee lan la ciy tontu bu ëllëgee bu ko defee nee na genn kàddu daal di jib juge ci asamaan wax ne sama jaam day dëggal na boroomam subhanahu wa taala wala sama jaam dëggu na ci li nga xamante ne bi moom la wax mooy la ma wax noonu la sadaqa abdi sama jam deuguna ci la nga xamantene bi loolu la wax neena bu ko defee ñooñu daal di dem jeneen waay dikkal ko waa joo xamantene da koy dikkal ak kanam gu rafet sol mbubb yoo xam ne mbubb yu rafet la di xeeñ timit gëtt goo xam ne gëtt gu neex la xet gu neex la bu ñëwee bu ko nit ki gisee rek daf naan ko ah waay yow moom sa kanam rafet na de sa kanam yànj na yaa ngi dikk di ma nurok koo xam ne daal xibaar bu neex moo ko tax a jóg lu baax lay indi yow yaay kan bu ko defee mu ne ko man maay sa jëf yi nga daan jëf ci àdduna man maay sa jëf yi nga xamante ne bi moom nga daan jëf ci àdduna bis bii nag la la sa borom digoon moo la taxoon doon kër-këri ak a sonn ci àdduna mooy sa bisu tey bii mu ne bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala daal di digle ne jaam boobu nañ ko yaatalal ci bàmmeelam daldi koy ubbil benn bunt boo xamante ni dafay jàkkaarloo ak aljanna bu ko defee xet gu neex ga ak péex ma ak xewal ya diko ko dikkal ci bammelam di jugal ci aljanna teranga googu ko yàlla defal ak mbekte googu ko yàlla defal fay kontaan ba tax day wax nan yow yàlla taxawalal bisu penc bu ko defee ma mën wan sama njabot ma mën wan sama ñoñ xewal ak teranga gi nga xamanteni defal nga mako yow yàlla taxawalal bisu penc bu ko defee ñu ne ko xaaral next tuuti rek bisu penc dina taxaw bu ko defee fay nelaw nelawaay boo xamee day mel ne nelaw gu oyof la nelaw ci bàmmeelam rek bisu penc taxaw maanaam yàggaay bi du ko yëkk koko non lay nekké ci bir bàmmeelam ay xéewal diko fa fekk yàlla subhanahu wa taala defal ko teranga gu reuy gu mel nona mu daldi wax ne waye jaam bi nga xamanteni bi ku weddi yàlla la subhanahu wa taala ci yenn riwayat mo ne jaam bi nga xamanteni ab nafiq la bu fekkenteni dafa tollu ci génn aduna jëm al alaxira ay malaika dañ koy dikkal yo xam ay xar kanam yu lëndëm lañuy indi bu ñuy ñëw dañuy indalé ben darab boo xamante ni benn càngaay goo xam ñu ko jële ca safara dal di koy indaale wàcc ak moom di xaar malakul mawt bu malakul mawt ñëwee day daal di jàjji ruux bi ne ko yow ruux bu taq bi yow ruux bu tilim bi yow bakkan bu salte bi génnal nga wuyu sa borom génnal nga jëm ci mbugalu sa borom ak meru sa borom bu ko ruux bi déggee day daw ci biir yaram bi daal di tas ci biir yaram bi bu ko defee mu koy rocci di ko bif di ko xëcc ba buy génn ci yaram bi ay sidit dañuy daggaale topp ko ndax génn gu metti gi muy génn ndax ragal gi muy ragal a génn nee na ci anam boobu la koy noccee daal di koy rocc génn ko bu ko génnee duñ ko bàyyi ci bakkan bi lu toll xefe xippi lu dul na dinañ ko jël daal di koy def ci malaan moomu bu ko defee muy gilli di xeeñ xet gu naqari ñu ànd ak moom jëm ca ca ca asamaan fu ñu romb rek ñu ne leen kii ruux bi ruuxu kan la ñu ne leen ruux bi de ruuxu diw la doomu diw diko diko jox tour bo xam tour bu ñaaw la ci turam yi ñu ko daan wowe ci aduna bu ñu ba ci asaman ñu sàkku ñu ubbil ko ñu ne len koku duñ ko ubbil buntu asamani moy li yàlla waxone wa yushrik billahi li yàlla lim waxone la tuftahu lahum abwaabu samaai hatta wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat desu len tijjil buntu asaman te itam duñu duggu aljanna baba gëlem di duggu ci ban banu puso moy kon lolou du mën a am ndax dañuy wax ne ma ulliqa bil muxal fa huwa muxal mooy ne du am moy ne desu len mës a tijjil buntu asamaan te itam duñu ñu dugg ca aljanna ndax weddi gi ñu weddi yàlla subhanahu wa taala bu ko defé foofa nga xamanteni fa lañ tijjiloo ruh bobu buntu asamaan ñu lànk bañ koo tijjil foofa la ñuy daal di bi daldi koy yol mu jëm ci suuf ndax suñu borom da nan len ki ñuy bind ay jëfam moy sa juróom ñaarelu suuf di place ba nga xam moom la ñuy tujjee sijjiin te yàlla waxoon ne inna kitaabal fujjaari la fii sijjiin téere wu ña nga xamante ne bi ay kàccoor lañ ña nga xam ne dañoo mooy seen borom dañoo weddi seen borom subhanahu wa taala seeni jëf ña ngi koy bind ca sijjin mooy ca juróom-ñaareelu suuf bu ko defee ñu sànni ruux bi ruux ba jëm foofu buñ ko sànnee mu jëm ci suuf loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ne loolu la yàlla wax ne wa man yushrik billahi fa ka annama xarra min alsamaai fa taxtafuhu tayr aw tahwi bihi riixu fi makanin saxiq koo xam ne da ngaa bokkaaleeg yàlla koo xam ne da ngaa weddi yàlla subhanahu wa taala yaa ngi mel ne koo xam dañ koo sànni mu jóge ci asamaan ya jëm ci suuf mu ne bu ko defee picc yi daal di koy fëkk nee nañ picc yooyu ñuy misaal ne ñoom ñoo ko fëkk fëkk ruux bi ci kaw jiiroo ko xëccoo ko loolu li muy màndargaal mooy bëgg-bëgg ak bànneex yi mu toppoon fii ci àdduna nga xamante ni daanaka loolu moo séddoo ak dundam dundam ci loolu la ko jeexal aw tahwi bihi riixu fi makaanin saxiq wala ngelaw li jël ko sànni ko ci bërëb boo xamante ni bërëb bu xóot la bërëb bu sori la te loolu moom mooy sijjën ga nga xamante ne fa la ñuy yóbbu ruux boobu ngir bind fa ay jëfam buñ ko fa bindee ginnaaw bi dañ koy delloo ci bàmmeelam buñ ko delloowee ci bàmmeelam ñaari malaaka yooyu dikkal ko daal di koy toogloo laaj ko ñetti laaj ya laaj buñ ko laaj ne ko kuy sa borom du mën a tontu daf naan ha ha la adri xaw ma lay wax xaw ma xamul lu muy wax buñ ne ko lan mooy sa diine mu ne xamul lu muy wax buñ ne ko ki yàlla yebaloon ci yéen kan la mu ne xamul lan lay wax ci yéen riwayat yonente bi alayhi salaam neen daf naan sami'tu an-nasa yaqulu shay'an fa qultu dama déggoon nit ñi di wax dara rek ma topp ci di ko wax waaye li ma doon wax sax xaw ma ko loolu kon di wane importance nit li muy def fii ci àdduna mu teg ko ci ay firnde teg ko ci xam-xam boo xam ne bu ko bu ko dikkal la jóge ci boromam subhanahu wa taala bu ko defee genn kàddu jóge ci asamaan ñu wax ne sama sama jaam day weddi na ma wala sama jaam weddi na bu ko defee ñu daal di koy naj ci bàmmeel ba daal di koy tanc ci bàmmeel ba ba nga xamante ni ay faaram dañuy juyaloo ay faaram dañuy juyaloo nga xam ne bàmmeel bi rek dañ ko fay mbugal mbugal moo xam ne mbugal mu tar la mu toog ab diir kenn koo xamante ni ku lëndëm kanam la sol ay yëre yoo xam ne yëre yu lëndëm la di xeeñ xet gu naqari dikkal ko mu ne ko yow yaay kan yow yaay kan ci jaami yàlla yi yow day sa kanam gi nuruwuma kanam guy indi lu neex kanam guy indi lu naqari nga may nurul mu ne ko man maay sa jëf ya nga daan jëf ci àdduna te sa bis bi day yàlla subhanahu wa taala digoon na la ko bu ko defee ñu daal di koy fitnaal ca bàmmeel ba ubbil ko bunt boo xamante ne dafay jàkkaarloog safara xet gu naqari ga ak tàngoor wa ak saxar sa di di dëkk di ko fekk ci bàmmeelam boobu mu naan yow sama borom bul taxawal mukk bi su penc ndax xam na ni toroxtaange mi ngi koy xaar ak mbugal mu tar moo xam ne moo raw li mu nekk yonent bi alayhi salatu wasalam xadis bi mi ko nettali mu nekk ci musnad alimam ahmad di hadith bu wér mi ngi tamit ba ci sunan alimam tirmidhi ak alimam nasai cosaanu hadith bi yonent bi alayhi salatu wasalam nettali xadis bi muy xadis bu raglu di xadis bu màgg mu ciy wax li nga xamante ni moo aju ci wàllu faatuk doomu aadama bu tollee ci di génn di ñàkk bakkanam di génn àdduna di jëm alaxira ci ban anam la fiy jóge mu leeral ko ci anam boo xamante anam bu mat la والله لي منت منوكو خمل بوبام بوكو يالا خمالول وون دومو ادم منت ييو ييو بري اي بخي موسبا منا خم ديتاي يي ني تي دومو ادم اك فاتوك دومو ادم لودول نيا يالا سبحانه وتعالى موم موكو خمال مو ليرال كو خمال دومو ادم اي تي انام بي في جوغي اك نيلن ملائكه دي ديكلي دي جيل روح ñaari kurel الرجل lañuy إما imma ku texe wala ko texe di ndax benn néew di ko denc ji mu ne ku noppalu ak ku ñu noppalu ci moom saxaaba yi ne ko lan mooy ku noppalu ak ku ñu noppalu ci moom mu ne ab jaam boo xamante ni dafa gëm yàlla buy jóge ci àdduna dafay noppalu ci jafe-jafey àdduna ak coonay àdduna ndax bu fi jógee rek dina xam ne ndakate àdduna coonay kase la li ci yàlla wax ci melokaan yi ko yàlla melal yépp dëgg la ndax teraanga gi muy gis ak bànneex gi muy gis dina xam ne ndeke moom ci coono la dund waaye jaam boo xamante ni ab kàccoor la ku weddi yàlla la bu fiy jóge moom du noppalu moom waaye àdduna bi mooy noppalu ci moom ndax suuf si dina noppalu ci moom gàncax gi dinañ noppalu ci moom nit ñi dinañ noppalu ci moom bàyyi may dinañ noppalu ci moom ndax mooy yàlla ak ñaawteef gi mu fi nekkoon di ko fi def kon xadis bu màgg la buy wax tamit ci mbëgaluk bàmmeel di wax ci dee di ko fàttalikoo doomu aad di ko fàttali di ko fàttalikuloo doomu aadama yi ñu war di ko fàttali fu ñu toll suñu bopp di ko fàttaliku ndax yonente bi alayhi salam daan na wax naan ala wa aksiru min dhikri hadimi ladat daan na wax naan bari leen lu ngeen di fàttaliku ak dee bari leen lu ngeen di fàttaliku li nga xam ne mooy dog bànneex yi te mooy ak faatu ndax dee musiba la musiba la ko yàlla subhanahu wa taala tuddee fa asabatkum musibatul maut waaye borom xam dañ leen wax ne musiba la boo xam ni musiba bi ko gën a tar mooy fàtte ko dee ci boppam musiba la ko yàlla tuddee waaye fàtte ko musiba la moo xam ne moo raw musibay dee kon doomu aadama waru koo fàtte ndax da koo war a waajal fu mu toll ndax saa bu ñëwee rek dafay bett doomu aadama bi amul kenn kuy pare ba bu ko dee fekkee fekkee ci àdduna bi mu ne pare woon naa amul kenn kuy pare ku dee ñëw fekk wuy si ci àdduna rek ku fi dee ñëw rek jël si la rek daf lay bett kon di ko fàttaliku fu ñu toll ngir di gën a waajal suñu bopp ci ne kër gii du nekkul suñu saxukaay dañu fiy jóge loolu kenn ku nekk ci ñun lu wér la ci yow lu bér la ci yow waaye sikki sàkk lay gën a nuróol mooy li kenn doon wax naan maa raaytu yaqinan ashbahu bi shakki min yaqini naasi bil mawt gisuma yaqin boo xam ne lu leer la ci nit ñi ne dina am nekk conviction ci ñoom boo xam ni ay njortu lay gën a nuróol lu nuroog yaqin gi ñu am ci ne dinañ faatu yaqin la ci ñoom waaye ay njortu lay gën a nuróol ndax ni ñuy jëfee ak ni ñuy doxee ci àdduna bi daa mel ne loo xam ni daal dëgg-dëgg gëmuñu ko njort la ci ñoom rek waaw léegi nag moo tax kon ñu gën a war di waajal suñu bopp ci faatu di ñaan yàlla subhanahu wa taala bu ñu demee ba suñu àpp jeex ñu war fee jóge yàlla subhanahu wa taala yërëm ñu te bañ ñoo xool ci suñuy jëf ak suñu gàttañlu yàlla yërëm ñu te jéggal ñu suñu way dawlu yi nga xamante ne tamit ñoo ñu jiitu ci kër yooyu yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala yërëm yàlla yërmandeem yaatu na yërmandeem ëmb na jëfi jaam ñëpp waaw xaj nañ ci yërmande yàlla yàlla nañ ko yàlla subhanahu wa taala defal yàlla nañ yàlla xool ci yërmandeem